mbokk internet yi seetaan Kabir TV dal leen ak jàmm tey nag ñu indi seen première numéro ci actu de la semaine maanaam émission bi leen di wan li nga xamante ni moo gën a fës ci ay bés wi ci ay xibaar léegi léegi li ci gën a fës. bokk na ci njiitu réew mi jël ay ndogal ngir rek daal di at wattu kaaraange gi ci biir géej gi ginnaaw rek ba fukki doomu aadama ñàkkee seen bakkan ci weekend bi ñu génn daan ci dikkaat ci ni mu gën a yaatoo ñu wax ci leneen ba tey ci njiitu réew mi la ñuy des ak tournée économique bu mu doon amal ci bët gànnaaru réew mi foofee nag ca warasoo gi nañ ay nervi yu daal di dal ci kaw ay population yu doon ñaxtu daañu ci dikkaat ci mu gën a yaatoo bokk na ci leneen lu ñuy waxtaanee xibaar yi bitim réew léegi léegi ñu yaatal xibaar yi ñu gën a fës ci ayubés yi bokk na ci ca plage bu euh, Malibu ci euh, weekend bi ñu génn ñu nemmeeku fukki doomu aadama yu ñàkk seen bakkan lu ko waral nag moo di dañoo lapp ñooñee ñëpp di ay euh, ndaw ñu daal di ñàkk seen bakkan ci benn bés foofee ca plage bu Malika li lay waral sax nag ci njiitu réew mi Macky Sall daal di artu ñi nga xamante ni ñoo di way yore kaaraange réew mi ngir rek ñu daal di sóob seen loxo ngir wattu kaaraange gune yooyu bañu ñu ñu sax ba daal di tëj eh, yile eh, plage nga xamante ni dañ daan aaye eh, ku fa sangu ñu wax ci leneen ba tey ci kàddu njiitu réew mi Macky Sall mi doon amal ab tournée économique fële ca bat gànnaaru Sénégal moom nag ginnaaw ba mu daal di defee podoor def maatam ca ba muy dem Wuro Soge nag la ko bi ji ak ci mouvement bi di Fouta Tampi daal di koy teeru ak ay morso yu xonk ci loolee nag nañu nemmeeku ay nervi yi nga xamante ni ñaartu nañ ñi dañoo ànd ak ñi nga xamante ni euh, moo di euh, parti au pouvoir ñoo daal di dal ci kaw askan woowee takkoon ay brassard rouge daal di leen di euh, duma loolee nag activiste yi ñaawlu nañ ko ku ci mel ni waa Y'en jóg nañ daal di ñaawlu li ni mel di sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di way takku der ñu daal di jël seeni i responsabilité balaa lii di jur li nga xamante ni moo di guerre civile keneen ku ci yëkkati ay kàddu di njiital Pastef Ousmane Sonko ginnaaw uh, ba muy doon uh, janoo ak uh, taskatu xibaar yi ci ajuma ji ci la xamle ni mi ngi ñaawlu li ni mel bu baax tey sàkku itam ci ñi nga xamante ni ñoo di takk der yi ñu daal di def seen liggéey daal di indi ay pexe ci loolu lu ko may mu ngi sàkku ci sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi dund li mel beneen yoone ñu daal di fajal seen bopp leneen ci xibaar fii ci ay bës bi ñu mu di verdict bu jógee ci diggante procès bi amoon ci diggante Euh, Souleymane euh, Teliko ak ki nga xamante ni moo di Madiambal euh, Diagne njiital groupe avenir communication ñu daal di koy daan ñetti weer yu muy tëdd waaye itam daal di koy alamaan lu toll ci cent 600000 francs bu bokk ak juróomi million yi nga xamante ni war na ko jox ki nga xamante ni moo di Souleymane Teliko ngir rek ay ndàmpaay ci fàttali rek ki nga xamante ni moo di Madiambal taskatu xibaar bii di Madiambal Diagne dafa tuumaloon ki nga xamante Téliko ne moom dafa am ay frais de mission yu mu jot ci euh, ba ñuy àtte ki nga xamante ni moo di Hissène euh, Habré mbokk yi fi la ñuy yem ak yéen ci xibaaru bi réew mi léegi léegi euh, ci bitim réew. ñaari xibaar la bu njëkk bi moo di Ibrahima Raisi daal di nañ koy fal njiitu réew bu Iran niki ajuma bi ñu weesu moom nag mu daal di am lu toll ci 61 virgule 95 pour cent ci ay voix léeg-léeg nag di yoon bu njëkk Iran daal di amal ay élection yi nga xamante ni daanaka ñiy voté ji euh, bëriwuñu ndaxte bu ñu euh, sukkandikoo ci xibaar yi ñu daal di jot lu toll ci euh, ci électeurs yi ñoom ñoom daal dañoo gedd bile élection demuñu euh, voté ji ñu wax ci leneen beneen xibaar fële ca États-Unis lañu koy euh, jeexalee ak euh, ayubés bi nag daal di bokk ci taarixu adduna bi yépp mën nañ ko wax parce que ki nga xamante ni moo di njiitu réew bu États-Unis dafa daje ak ki nga xamante ni moo di njiitu réewu Russie daje bi nag daal di amoon fële ca Genève ci loolee sax bokk na ci ndogal yu ñu jot jël ki nga xamante ni moo di ñaari njiitu réew yi xam ne nañ ni am ambassade ambasadeur bu États-Unis dana dellu ca Moscou bu Moscou itam dana dellu fale ca euh, Washington ngir rek daal di jàmm daal di doxaat ci diggante euh, Russie ak euh, États-Unis mbokk internet yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi ci gënoon a fës ci ayubés yi jaajëfal leen ci teewlu bi di leen wax rek ni ngeen di continuer di daal di suivre seen chaîne Kabir TV bu leen fàtte joxe seen xalaat ci commentaire yi jàngeen jëf ba beneen incha allah.